Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi te bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi ci nekk. sant ñu ci si jàmm ci ngi sëñ bi nuyu naa la ziar naa la bu baax di la bégee di la laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram gis nga de théâtre bi nii rek la mën a demee ndax biige warut am dara la nga xam ne nii ni nekkee nii rek dafa doy ndax ku man di sew damay mere ba nga xam ne dama ko seetaan normal li ma koy jaal si tiktok ba rek dama ciy doyal surtout nag su mu fekkee bon am na si métti ma koy si am na si bisaatu métti du ma ko seetaan bala ko yemalé wallahi ndax ndax sama xol bi day tangi jër ndax li ñuy def bigé ak yaayam ay waaye da na ko gis salaamaaleykum waa kër Madior ak jor na ngeen def yi ñu ci jamm bu baax nuy naa leen yéen ñu fekk ci buntu bi ziyara naa leen bu baax baax madam Mangane ma ngi lay nuy 5193 93 di nuyu Mohamed ngi koy nuy bu baax baax tawa yéen ñu ci jamm bu baax du nuy yéen ñi ci kaw ñep ma ngi lay nuy di lay ziyaar wa li kay géntal mom la mëna a nekk moom ndax bii gi moom bu bu ci deewoon moom du am sance bu ci deewoon woon du am sance nii génn doon la mën a doon mais soxna Bato gisagul dara gisagul dara te gis nga euh, salon ba ñoom di ko jay ñoom ñoom ñoo koy mujj di ko ree ree di ko toogaan di ko wax ndax déjà am na benn bi ñuy wax noonu am na benn ndaw su jóg ci salon ba jóg dem toogee ne moom bokk si moom ñi si des ñëpp dañ koy jaay te bu même xaritam bi koy indil euh, photo yi sax kooku da koy jaay ndax am na benn jour mi ngi naan ñëw maa ko ko yéene maa ko ko yéene moom xaalis bi ñu leen di jox rek lañu xool ba te bés bu amee defet lañuy xam ne lépp dëgg la mais xam ne ne ñooñu duñu woon xay xaritam xaritam dañ ko doon euh, ay àndandoom doom dañ ko doon joye rek te maar man lu mu koy yéene pour mu takk kooku rek te bu ko takkee léegi soxna ba toog dina du du toog day dem day dem ba pare parce que danaan kër gi këram la bi dem nañ ko ci turam yi ci bëri jekk na ko day dem xooloo xooloo xooloo seytaane bi sagar naan su jógee foofu dafa su su toogee foofu dafay xiif dem ah, ah, soxna soxna ba doon ko toggal mu jóg mu ne moom talu la woor talu xiif daal di jóg ñëwaat seen kër te mu ngi leen di sikkal de te lekk na ci ñaari cin bu let boobu muy wax lekk na ci ba suuf cuubuleet boobu muy wax lekk na ci ba suur moo tane pizzaam bi mu ñëw fekk ko ci kër ga ak li soxna ba toggoon muy ñëw di di indi te kuy indi yaay yóbbu te bu gisee fii lu mu war a yóbbu si kii noonu la leen di demee yóbbu te lu mu doon jëwee jabaru àll bi jabaru àll bi yëg na lépp daka kii ci biir rek ñëw toog jàpp ñaamuram sagar moom kooku moom tamit billaay moom tamit fu muy mujjee gàcce gu rëy la nara am ndax lu am rek moom moo ko indi lu am ndax moom mooy dem di nettali sax na ba toog moo koy dem di ko nettali mënul togg di mënul togg di ndax gis nga dafa dem si youtube bi di xool na mu ko na mu gisee ak na ko toggee xamu ndax ah, di nga gis ni togg wan doo xam lan mooy jiitoog lan moo ci war a teg waaw lu mu ci def ba mu wex xàtt ba maar lekku moo ko xam ba pare muy sëñ ji di kontaan defe ne moo tegal gaynde gi te fekk yow mu sax rey ko bilaay soxna bilaay fu muy mujjee dina metti torop ci moom waaw point bi ma bëgg a ñëw moo di nii moom maa loolu duñ duñ ci conséquence yi moom it ndax parce que tamit jigéen kenn du ko tooxal te dama gis ni dafa tooxal maleetu daf ko tooxal lim ko ba lim koy defal gisu ko doy na ci daal waaw dégg naa nag ci weewu bay ngeen ni du sago mais lum ñaaka nekk sago ñaaka nekk sago moom dafa war jot ci boppam boo toog noonu rek Eh, soxna bëtoo takk takk buum di ko wëndeel fu ko neex jëmale loolu warut a doxee noonu ci moom waaw dafa war a jéem a bañ wala mu jéem a pexe wala dara xam nga te dégg naa tamit mu ni ci épisode bi mujj mu ni mu ni eh, bi ko bi ko àll seet ci bureau bi mu ni àll man dum te ñaari raykati nit yi nii ci kër gi man du ma masa du ma ñëwaat ci kër gi xam nga loolu moom moom la concerné moom muy wax loolu waaw mais band la sa njaboot moom koo ko def laa yémi di nga ko gis ndax dañ lay wax ñu naan ku fasa sab aawo génn sab taaw moom di nga dund conséquence donte ne benn fan lay doon di nga ko dund comme moom na seen lool moom maa war na ko mën a war na ko dund si ma nag nu muy demee mais war na ko dund soxna Bado ma waxaale ma ko moom moom fi ban tàmbalee la yem moom kooku moom waxu may waxam waaw ni bége waati ne bu baax ziar leen ziaraat waa kër gi ñëpp waaw Pape Sow Pape Sow yow yaa moom Sénégalais yi wala yow yaa moom Sénégalais yi non Malo mënut a def li ko yaay bi digal na Malo dafa dëgg bopp dafa dëgër bopp bu dëgëroon bopp bi ko yaay ji ne sëy bi bu mu am da koy dafay génn ba set sewit foofu la dëgër bopp gi tàmbalee beneen bi des li mu ko jox waxan sumbuf boobu mu ko joxoon tam defoon ko ci kay bi noonu ni ko buñ ko buñ la buñ la joxee lekk boo kii ko kii sunguf boobu ba léegi jëfandikoo wu ko loolu wàll li ko dal daal ko mais en tout cas comme que la sax famille sénégalaise lañu wax day xew ci dëkk yi day am lu nit yëgal loo yëgula yooyu wax mais day am day comme ni ñu ko joué ni am mais Malo moom mere naa ko wax dëgg yàlla man moom bi muy too début bi na ma euh, nawoon naa ko wax dëgg yàlla na gisan naa ku bëgg soxna gisan naa ku bëgg njaboot waaye à la bi daf ma bett nii quoi waaw daf ma bett topp bett na ma bett na man nag xawma xawma xawma loxo la xawma du loxo waaye en daal dama gis ni jéemu ci dara daal waaw jéemu ci dara waaw loolu dafa lii te euh, liggéey bi gën a bon la ko soxna ba doon mooy da ko dëjale da ko dëjale euh, soxna Mareetu mam da ko dajale mom dajale gi moy wal bu ko soxla ma weetu waxee daal du ko gem et puis luñ ko wax ci soxla ma weetu su lu doon nonu da koy gem mom a 100% lolo ko sonal ah waaw way soxna di yo ben nop di digloo ben nop day sabab lu bari dal ay tak tak yo xam do xam ci nafasa mom lolo ko dal ba këram tas ba lu ci bari mënatu ko réparé am na yoo xam man nako koo lewat sax mais am na du yëpp lay man a lewat waaw benen bi bi mu bëgg ñëw di ni saga sama saga moomu non nga xamni ne dégg naa ne mom mom moom mooy saytaane kër gi moy saytaane fami bi ndaxte gis ñu ko bi ñëw ci kër gi li dafa yenn ci di ñu ko toj ko bam bam fa def wax ji way dem wax nak nee jalay allah bi dafa ay gaap nak di muy waji sëy ci yaayam gañu di mu wàccee di mu di mu di mu sey si seen kër tas xam nga wax jëm dafa rëy situation bobu day neen xalé la jalay allah bi dégg na ko ba bi daal mi ngi noonu waaw ñu xamante ni sëy bu am solo la ñu koy suuf di ko bàyyi xel di ñëpp waaw doomu aadama dama bëgg ngay def li la war bala li lay war du wees li lay war bu la xasee weese boo ko defetee dootul am sens moom dafa nit ba yëf yi bay way mbuus xamu ni ko wolof di waxee muy soog a yëngatu noonu jéem a yëngatu noonu jéem a wane boppam xalaaram noonu te yooyu waru woon comme ah fi may xool li war nga di ko nekk nga tuddee ko def waaw fi mu ne day bëgg dee te olof des fois wax ne ku bëgg a dee weexu waaw waaw bi bëgg a dee weexu dafa mel ni olof ñu waxaat beneen baat mu ni woy wuy këpp gaal kenn du ko way si tefes bu fekkee yow ngay mool maaloo na dafa mel dafa woy wuy këpp gaal te daa yow ay mool dafa loolu daa jaaxal na ma toog baax situation bi même bu taaxale ko bët soxna bëtoo nan la koy wedlewaate aawam beet ñoom a doomam yi noonu nan la koy wedlewaate moom te def ngeen ni waaw ñuy siyaaraat di bégg waat waa kër gi ñëpp <laughs> soxna Boto day woon ne ah boo xamal li koy yot dina ba li muy yot mais kim doon wax naa ko sama sëy bay bëgg a tas tam ko wax naa ko te sa tas sa ñëw sa kër ga kooku lan la ci moom kooku jëkkëram la woon wala moo doon njëkkëram du jëkk jë wala magam la wala lanam la ndax affaire bi daf ma jaaxal ah dama ko gis sax mu ko na sëy bi tas sa nga ñëw sa kër ga loolu laa ci jëte dégg ah waaw ah maa ba mu war a yëngatu du tey avant muy génn la woon a yëngatu waaye ñëw ba fii di doo loolu yooyu safunu nit day def li lay bala li lay war wees. yéen xam ngeen ne mos da koy takk ndax nëbbu ko ko ndax ne wax na ko ndax dangay danga koy doxaa mu ne ko waaw dama koy doxaat te incha allah dama koy tak <laughs> waaye xam na ne mos da koy takk moom kay na xam ne moom da koy takk xanaa da koy yóbbuwaat si seen liggéey bi rek pour mu def ay bagages yeneen dana ko takk de waaw kay ah su ko takkul rek man duma am lu ma neex. man damay mer damaa mer ba xam ne kii bi sax mënu ma ko si ah, nekk affaire xaru bi kay gént la mën a doon mënut a nekk dëgg de gént rek la mën a doon waaw kay lii moom gëmuma ko boobu laa ne lii gént lay doon wala boog affaire bi su amee moom mooy loolu te maarloo moom fi ñu toll si tànk rëccu la nekk bañ na ko man xaw ma añ biñ ko jox añu lan la bañ na ko ba lekk ko benn kutu la la si seex yàbbiwaat ko. asalaamaaleykum sama góor ñu ngi lay déggee si ñu ngi lay déggee sa ji am na solo trop macha allah waaw théâtre bi nii rek lay mën a def neex. waaw affaire bi doon ay gént bii gi nekk di dund baay <laughs> mais bu demee lool noonu ah teere bi doon doy waar billaay waaw mais neex na ma boo ma gisee bii gi tëdd ci lal dama kontaan fi ma tëdd billaahi waaw sama xol dafa sedd guy mu mel ni sama doom la woon man waaw mais yéen a ngi am jàmm bu baax. Sénégal 4 TV il le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi vous bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi